ndigal la lu bàyyi ko ci tubaa suñ Serigne Mountakha euh, jaar ci mboolem koo xam ne mbooloo ngi ci sa ginnaaw moo tax ma tàmbalee ci auzu billahi mina shaytaani rajim ndax jàngoro ji daj na àdduna euh, te seytaan rek ko fi indi ndax bu ñëpp maase woon ci wéetal yàlla jaamu yàlla kon suñu borom nattu wi mën naa am du wàcc ci nun waaye nag ñi fi gën a jege seytaane dafa mel ni ñoom ñoo ëpp ci nattu bi ko seetloo réew yi nga xam ne réew yu mag lañ te ëppale te ëpp sey te ëppale ci seytaane ab cër ñoo ci gën a bari ab nattu ñi nga xam ne dañoo am cër bu rëy ci rasulullahi am cër bu rëy ci Sëriñ Tuubaa kon nag ni ko sëñ bi bëggee eh, ñu kuy ñëw na nga fàggu ay masque yu bari bu mu doon benn masque bu mu doon ñaari masque waaw te eh, mboolem sart yi ñu def rek ku gis ñu julli Tuubaa da nga xam ne ñii ñi ngi sàmmoonte ak li docteur yi digle donte sax li docteur yi digle sëriñ taxaa am na lu ko ëpp doole waaye teewul mu def ko ngir ñi koy ñi koy roy ak ñi koy xool moo tax ñun ñi ñu takk ay masque nii waaye masque yi am na lu ko ëpp doole waaye nag ginnaaw sëñ baa nga koy def faaw di ko def te war ñoom gouvernement bi war nañoo sant sëriñ Muntaxa ndax ñëpp a ngi def nii fi mu nekk di takki masque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 aar na la ba nga jógee gut sa kër kon nag maa ngi ñaanal ñëpp e, ci ak ñi fi teew ak ñi nga xam ne ñu ngi ci waaj taayu màggal si ah, ñu ñëw ak jàmm te dellu ak jàmm te ngërëmul Sëñ Tuubaa li ñu fi wut kenn bañ leen ci ëpple kenn bañ leen ci ëpple sëñ Bass Abdou Khoudoss ak sëñ Moustapha Lakaram ak suñ Bachirum sëñ Moustapha Bachiru danoo tënkoon ab tënk ak suñu Cheikh Aliou danoo tënkoon ab tënk nun juróom ñooñu kenn ku ci ne ne sa moroom jataay boo teew te ma waroon caa teew nag ma teewaaleel kàddu yooyu yëkkati te ñëwuma fa nag ma joxewaaleel samay kàddu kon nag kàddu yi ma wax dafa bàyyi ko ci Sëriñ Muntaxa waaye Sëriñ Mustafaa Lakaram ci la sëñ Bass Abdou Khoudoss Thiele mi ngi koy digal waa këram sëriñ Cheikh Aliou moom sëñ Modou Moustapha moom sëriñ Touba mi ngi koy digal waa këram sëriñ Moustapha këram mi ngi koy digal waa këram ñëpp ba ñu jóge bitim réew nañu nañu fàggu fàgguteef yii kon nag maak sama bokk yooyu daal noo ngi digal sunu njaboot rawatina jëwriñ yu mag yi ku mel ni sëriñ Jibril Sum ku mel ni sëriñ Baye ngoor Fay Refon ku mel ni euh, ku mel ni waa Bari Ndoldol Alaaji sëriñ Tine ak sëriñ Moodu Roxaya Tine ak sëriñ Moodu Tine euh, ak ab sëriñ Fay ak sëriñ Ndiaye Ngaye Xem ak njabootam muy Cheikh Ndiaye Ngaye Xem rakkam ba Baku Njéeme waa Daaru Kibaar yi ak waa Ndakaaru ak ñëpp rek mu ne sutu lim ñëpp waaye nag képp koo xam ne may sa wasila suñ ab suñ Abdu Xud Bas Abdu Xudoos di sa wasila suñ Moustapha Lakaram di sa wasila euh, suñ Cheikh Aliou di sa wasila suñ Bas Poroxaan di sa wasila sëriñ Moussa Mbacke di sa wasila noo ngi lay digal booy ñëw na nga sàmmonte ak ndigali sëriñ Muntaxa yi jërë jëf